parce bi ban ko lay taxawal parce que du ma léegi nag Ouzin na ma nawle damay woon ne Sénégal gépp du ma moroom. Pawlish naa ko nokk nokk ñu mu àndal nokk am nokk ko ngem. waaw. <laughs> Ah, kon boog duma xam nga xam nga olof Ndiaye dana duma ku mën si duma. Ah. olof Ndiaye dana mbaara bukki ku si déggu mbaar dégg nga sabit mbaar mbaara bukki. ko Ousseyn dama ko woon fu mu jaar dama ko fekk dóor ko mu tëdd dama ko dóor ko mu tëdd dama combat moom sax combat xam nga combat boo daay nit di ko accolade bugguma sax def accolade ak moom. Euh, lamb ji yàkkamti nga ko wala yàkkamti woo. man yàkkamti naa bu ma soobee mu nekk tey. Hmm. fu ne yaakaar naa sax Pawlish laa jàkkaarloo. est-ce que du ah non jàkkaarloo moom oui ma est-ce que du liñ ko dóor moo tax nga foog ne yaa ko mën. non non du dóor sax damaa xam bu boobaa xam na ne dina la gis boobaa Pawlish boobaa bayaar lay gis. ah boobaa bayaar lay gis bayaar. non non non. mënumaa daanu. Hmm. Ousseyn moom sérieusement su ma doon nelaw mënumaa yee avant ngaa football boo def échauffement. waaw ma Ousseyn ma fay ay million ma dóor ma fay ay million ma bëree Pawlish ndax damaa war a man. Hmm. na man maa ngi ndiroo xar xanaa wax su ma ndiroo xar mooy mooy xaru tàpp man man nangu naa ne laa dum moom xanaa mu Ousseyn moom xanaa xaru. xaru tàpp Ousseyn ni mu xam lekk ba suuba am yaram Ousseyn nit genre boobu la xaru tàpp la. xam moom vampire lay ndiroo par na ñaaw na gis nga gémmi Pawlish. loolu nga ba yaa xojo ba jaan. su ma jàppee Ousseyn non ma jàppee Ousseyn tey di di ngeen gis loolu monsieur kii dama koy takk. takk. xam nga xam nga bëre dina am dina bëre dina am ñuy jël. microcentrale yi. Mm-hmm. dama koy dóor ba di xëcc microcentrale yi takk ko ci microcentrale yi ak cóol xam nga sabar dina am ay galañ. waaw takk ko galañ takk ko ci biir géej bàyyi ko bàyyi ko mu dem. Ouzin ni mu bindoo Ouzin kon xaru tàpp Ouzin ni mu bindoo ne xor Ouzin mooy gi nga gi xam mu siiru indil mu siiru teg Ouzin ngeen xool. ma gisee suuf dinaa dinaa ne xale yi yoo xoolee ko <laughs> dinaa ne bu gisee ba dama ne xale yi ne leen vampire.